am na juróom-benn wala juróom-ñaar yoo xam ne maa ngi leen koy bëgg a bu fekkee daan nga ko def bàyyi ko bu fekkee mosoo ko def bu ko def euh, bismillah bu njëkk bi mooy sukk ak sa boroom kër ci ndab njëkk koo jóg ku koy def lee nga génn kër gi leer laa la wax bu ñaareel bi mooy bankal sa baaraam kuy bale ba mu yàgg say tànk taq nga tëral bale gi fomp ci say tànk continuer di bale li ngay bale mu génn ku ko def leen nga génn sa kër léegi génn kër gi gënut bu ñetteel bi mooy nga ñëw fekk sab lal au nga yëlëb ko ba mu set door a tëdd nga fab sëb sër di ko fëgge lal bi ku koy def doo jóg ci njaalo sa xel day nekk ci mooy yàlla ku ko daan def na ko bàyyi bu ñeenteel bi mooy fóot sa yére guddi boole kook sa yére fanaanal ko ci liin gi ba ba set ku koy def day indi aw ay day indi musiba ci sa digganteeg sa borom kër ku ko daan def na ko bàyyi ku ko mësta def bu ko def bu juróomeel bi mooy maanaam nga safaanoog sa boroom kër ci guddi gu ngeen di tëdd nga féetale ne sa bopp mu féetale ne boppam loolu gënut te ay musibaa ngi ci yoo xam ne buñ ko mënoon a faram euh, kon kay def loolu dootu ko def muy juróom juróom-benneel bi mooy guddi jot nga tëdd nga dem ca duus ba sangu ba set ñëw tëdd ak sa boroom kër te fendi woon ndox moomi di ko laal day indi musiba ci kër gi day indi aw ay ci kër gi day bare bari yu bari yu muy jur ci kër gi yoo xam ni gënul képp koo xam ne daan nga ko def ñoo ngi lay suwete nga bàyyi ko kon lii daal lañ ni woon mi ngi ci suñu xel gëstu nañ ko ba am ci ay information yu wér ni gënul cib sëy Euh, ñuy wax ak suñu mbokki soxna yi ñu góor góorlu ci bu baax a baax kii mooy Abdou Karim Guèye bu sëriñ Abdou Khadir géey bu Touba xawlu euh, ñoo ngi ñaan ci yàlla bépp soxna boo xam ne jot nga ko te mu convaincre la nga gëm ko bu ko def boo ko gëmut nga konne ca la nga nekkoon te boo jàppee ni gëm nga ko ba di nga ko appliquer nga jottali ko euh, koo xam ni jàpp nga ni moom mën na cee jariñu ndax njariñ rek lañ ci bëgg ak euh, dimbali leen dimbali suñu bopp ndax lu ci bari ñu nag yéen ñoo koy bokk muy borom kër yi kon muy ku góor ki muy ku jigéen ku ci nekk yitteel na la euh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, di leen tuubal bu baax a baax di leen jéggalu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullah partagé leen ko